à TFM. elle est sportive, mais technicienne à la RTS. Ça m'a invité sur le plan sportif et technicienne à la RTS. Quand l'invité est, arrivé à TFM, moi, technicienne technicien TFM, je me dit Ah bon, Fabi, elle fait du sport. elle est tellement gentille. Les bouilles avec mon reportage. L'union manque, mon Ce sont les techniciens de TFM qui disent de la technicienne de la RTS qu'elle est gentille. Parce que chaque fois que nous avons un reportage, ah, tu manques d'un cordon, Tu manques d'un micro. Technicienne, RTS, bi, Abal, micro, benen, benen, benen, benen chaîne. Lolo m'a dit place ou RTS. RTS, locomotive vous mag la. Bo xamni ñun ñëpp war nañu mën lonk suñu wagon ci locomotive RTS je ndey ji rew Euh, gis nga que euh, ma xam nga ni de grands journalistes qui ont di yëngu fenen jaar RTS génne nañ fa ba man conseiller à la RTS na demander ñu tout le monde parce que non seulement nous, ëpp doole parce que ñoy état ñoy état te léeg-léeg mu am kàddu bu jib ci mbedd bi bu mais RTS moi état un ñëpp ci état bi lañ bokk droit yi ñuy jënde télévision bi d'où vient l'argent droit yi ñuy jënde match yi d'où vient l'argent ñun ñëpp contribuable lañu ci ba tax ne ñun ñëpp xaj nañu ci gis nga RTS mën ku ci nekk mu te du ko am li mu am ba pare waaw parce que ci chaîne de télévision yi tey jii benn mënu ci concurrencer RTS waaw parce que chaîne privée la patron la ñu am alors que RTS euh, locomotive u état la ba tax na ci côté boobu nit ñi war nañu toog waxtaanaat waaw mën nañu toog waxtaanaat parce que xam nga ci sénégalais koo ëpp doole boo dee xeex moom sax ñu la yaa ko tooñ ki nga ëpp doole yow yaa ëpp doole su ngeen xeexee yow mi ko ëpp doole la ñuy wax ni yaa tooñ parce que comme moom amul doole ñemewul la tooñ alors moo tax ci côté boobu war nañu seetaan waxtaanaat ci waxtaan bu gën a sénégalais waaw parce que buy aboutir waaw moom laa la wax wax waxtaan bu nga xamee ni li ma tuddee gën a sénégalais moo di euh, kenn du ci gaañu waaw parce que lépp ci biir Sénégal lay des du dem ci beneen loxo loxo ku nga xamee ni du sénégalais ba tax ne ñun ñëpp bu ñu booloo ànd mën nañu tey jii lu ñu ñàkk wuti ko RTS yeneen chaîne de télévision yi mën nañu dama ñàkk lii dama koy wuti RTS c'est c'est tellement vrai que léeg ma toog sama kër di xool yeneen télévision yi wala may déglu yeneen rajo yi dégg loo xam ne ni RTS la jógee Amane Ndiaye Samb Samba Jabari Samb boo leen déggee ci yeneen chaîne loolu RTS la jóge parce que jamono Amane Ndiaye ak Samba Jabare rajo yi ak télévision yi amuñu woon fu ñu jëlee loolu

yow mii borom kër gi mën nga xamal ki ci gën a mag euh, nay dimbale rakkam di ko gunge di ko séet bañ xeexamam kenn du xeex ak sa rakk kenn du xeex ak sa doom